sunu mbokki jullit yëpp ak mbokki réew mi yëpp di jiital ci nuyoo boobu xalif général des mourides cheikh Mouhamadul Muntaqa ak njabootuk Serigne Touba Xaadim Rasoul bi yëpp ak mbooleem xalif généraux yi nekk ci réew mi yëpp di leen ziyaare te di leen ñaanal jàmm mucc xéewal sutura barke ak njéggal ak yërmande sunu borom subhanahu wa tay nak ñu bëggoon l'avenir de Touba ak lan moko wara développer bala lolu nak bëgg na léral ci Touba ak statut spécial bi mu am té ñu Tuba bari xamuñu Touba titre foncier la validé par les colonialistes bien avant l'indépendance titre foncier Touba mo mak République du Sénégal kon Touba c'est une ville autonome dans une république, comme Monaco en France, comme Vatican en Italie, comme Andorra en Espagne ak yenen ak yenen deuk yu amé comme statut spécial bi Touba Amé. kon ñu xamné Touba Serigne Touba moko mom. Touba état amu fa ben dogal xana ñi xamul waye gouvernement bi ci bopam xamnañu lolu. Touba état par coopération rek lañuy jëf euh, Touba état par coopération rek lañuy jëflanté ak ñom té lepp lu fay institution ak mbooleem lu fa état sampu bu neexoon xalif général des mourides du fa Tuba Touba état sañu fa def dara sans autorisation Khalif général des mourides kon Touba ñu xamné ne kenn musuko yilif du bour du kenn ci colonialiste yi Touba sunu boroom daf ko nëbboon def ko mu doon une ville protégée mu doon zone buy eh, séparé mu doon zone rouge buy séparé royaume yi ndax boo xoolee Touba diggante ak Kayel matul woon 40 kilomètres te Kayel Lat Joor moo ko yilifoon Touba digganteem ak kàdd ballo ji matul 40 kilomètres te foofu buuri jolof yi ñoo ko yilifoon matul 40 kilomètres te foofu buuri bawol yi ñoo ko yilifoon Touba digganteem ak Barga ak dëkk yi ko wër matul 40 kilomètres te foofu ku ne xam na ci Kajoor la bokk kon Touba zone rouge la ko yàlla defoon def ko mu doon une ville protégée mu dencal ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul Touba nag am na ci ay daara alquran environ ci xayma lu toll ci junni daara ak juróomi téeméer maanaam 1500 daara euh, wala boog lu ko ëpp Touba am na lu toll ci ay jàkka ci 700 euh, jàkka Touba am na ci ay juma lu toll ci 125 juma yoo xam ne dañu fay julli ajjuma euh, te jumaa yu ci bari bis mu ne dinañu fa wàcce ay kaamil di fa jàng ay xasida di fa def ay zikrula ak ay salaatu ala nabi Touba amna 32 structures de santé euh, manam fanwer ak ñaar ci ay ñaari hôpital yu mag 6 centres de santé ak 24 postes de santé Touba amna 27 marché Touba amna ci ay forage 33 forages bientôt 34 kon ñu xamné Touba il faut kon kon ñun waa Touba il faut ñu jël suñuy responsabilité lu jëm ci sunu destin te bañ a xaar état ci dara Touba nag Sëriñ Touba moo ngi ko sanc ci atum 1887 tudde ko benn garab bu nekk ci àjjana mooy shajaratu Touba moom la alquran di wax ne di junj di wax ne alladina amanu wa amilu salihat Touba lahum wa xusnu maab euh, قال كعب الأحبار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشجار الجنة قال لا تيبس أغصانها ولا تسقط أوراقها ولا يفنى رطبها وإن أكبر أشجار الجنة شجرة طوبى أصلها من ضرة وأغصانها من زبرجد وأوراقها من سندس وليس في الجنة غرفة ولا قبة في موادعها إلا وفيها غصن يظل عليها منها jële nañ ci kaabul axbaar mu ne laaj naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbiri garab bi aljana yi mu ne ma garab bi aljana yi day dañoo uuteeg garab bi àddina ndax ñoom seeni banqaas maanaam seeni cer du wow mukk maanaam du mës a lax seeni xob tamit du rot mukk ci suuf du wadd mukk ci suuf teyit seen meññet du jeex amul période bu muy am ak bu mu dul am waaye nag garab ga gën a rëy ci garab bi aljana ya mooy garab ga ñuy wax sajaratu tuuba muy garabu tuuba mu ne e, cosaanul garab ga muy dattu garab ga sunu boroom mi ngi ko e, créé ci wurusu durru ay e, caram mooy ay banqaasam sunu boroom mi ngi ko defaree ci wurus wu ñuy wax zabarjat ay xobam sunu boroom mi ngi ko defaree ci koddaay aljana mu ne te amul ci àjjana benn chambre wala benn xubba wala benn pale wala benn bërëb ci bërëb bi àjjana yi lu jul ne euh, keruk garabuk Touba googu àgg na fa ba di ko keral moo tax sëriñ Touba di ñaan boroomam di wax ne euh, euh, waccaal ilahi maskani tu Touba abat mithlasmiha bijaahi xayri man abat mu ne yow sama boroom sama dëkk bii nga xam ne maa ngi ko tuddee Touba na nga ko def ci turandoom ci neexaay mu jël léppam mu nuru ko ci lépp ci neexaay ak ci lépp moom lay junj de wax ne it tuuba li abdin muridin saadixin lahum bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin euh, sëriñ tuuba xaadimu rasul ñaanoon na boroomam pour sunu boroom defal ko dëkkam bii di tuuba muy dëkk bu ba dëkk bu am barke dëkk bu euh, muy nekk dëkk bu barke nekk dëkkub xam-xam nekk dëkkub diine nekk dëkkub euh, ragal yàlla nek dëkkub ragal yàlla nek dëkkub xam-xam don dëkkub diine moo mu wax ne wa maskani jaal maskanan mubaraka wa sayranni salika wa nasika wax ne it ad'uka an taj'alahu dar tuqa wal ilmi wad diini wa daara lirtiqa Touba muy foo xam ne bi ko Sëriñ Touba di sanci dara nekk fa woon amul woon dara lu dul ay garab ak ay rabi àll te dara taxul woon nag sëriñ Touba sanc ko lu dul daw nit ñi ak li nekk ci loxoy nit ñi jëm ci borom nit ñi moo tax mu wax ne jaawastu naas wa ma fi aydi naas ila rabbi naas wa lamma wasaltu ila rabbi naas aataani nafa naas wa kafaani durra naas mu ne ah, jéggi naa nit ñi bàyyi leen ak li ci seeni loxo jëm ci borom nit ñi waaye ba ma àggee ci borom nit ñi borom nit ñi daf ma jox njariñul nit ñi fegal ma lori nit ñi moo tax Serigne Touba di ko xam ne da nafin bila dorar la njariñ lu àndut ak lor la amee Touba muy dëkk boo xam ne dëkk bu tàng jër la nga xam ne ku fi ñëw di nga xam ne ki sanc fii topp ba kanam taxu ko woon a jug jaamu yàlla ak liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa moom moo ko taxoon a jóg moo tax mu wax ne wa maskan jaal maskan gufraani ورشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنج من بدع واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع l'avenir de Touba waaw Touba ana lan moo ko war a développer ndax Touba biñ ko sancee ak léegi yàggul te boom démographique bi mu am gisuñu ko ci Afrique xanaa dëkk bu mel ne Dubaï gis moins de 100 ans mu développé développement bu gaaw bu mel Touba actuellement moy deuxième capitale du Sénégal ci économie ak ci population mu mel ne Touba ni muy màggee dafa gaaw ndax population de Touba ci xayma environ 2 millions wala 2 millions et quelques mu am nak ay infrastructures yu am solo te te amul nag benn ressource naturel bu fa feeñagu bu fa feeñagun euh, te kenn industrialisé gu ko kon loolu may gu sunu borom subhanahu wa may jaamam bii di Serigne Touba xaadim rasul la loolu nag Serigne Touba bokk na ci li mu ñaanoon boromam ne ko wa kattiran xayraati hada al baladi wa risqahu wal takfihi an nakadi na nga baril yiiwu dëkk wii danga yokk yokk wërsëgam te nga fegal ko lépp loo xamante ni lu jëm ci wàllu coono la ak ay naqar yu ni Touba amul port amul aéroport Touba amul ay ressources naturelles Touba amul ay usines Touba amul amul et cetera waaye nag Touba am nañu Serigne Touba te ko am Serigne Touba ñàkkatoo dara ndax Serigne Touba moo wax ne malakani dun malakani dunya wa oxra samadu maxtiir li ma indahu la yanfadu sunu boroom may na ko àddina ak ci bëgg a jëfandikoo mën na balaa may ñëw nag ci développement de Touba bëgg na ma souligner ay points yu am solo yu jëm ci wàllu jikko ak comportement bi ci njëkk mooy ñun waa Touba wala ñun taalibey Serigne Touba yi war nañoo sàmmonteeg àqi Touba lépp lu fa sëriñ bi di digle ñu def ci suñu kemtalaay kàttan la mu fay tere ñu bay ñu moytu ko faa def sàmmonteeg war may Touba ak àqi dëkk bi ndax alalu golo ca lex ba te ñun tuuba mooy suñu alal kon dañ koo war a euh, dañ ko dañ ko war a teg ci suñu bakkan nga xam ne ku ko nar yàq ñu jaay la suñu bakkan Touba sëriñ bi tere na fa lépp lu ñu sib waxantuma nag lu xaraam tere nañu fa politik tere nañu fa tux ak naan sàngara boîte ak baar moom jëlale naa ko tere nañu fa carte lamb football sabar tànn béer tëgg ak fecc ak yu ni mel te Touba bari na loo xam ne ma nga fay dugg di yàq te guddi la fay dugg te borom moto yi ak borom camion yi ñoo ko fay dugal kon loolu lu ñu war a mën a saytuwaat la xoolaat ko bu baax a baax am na sax ay agresseur yoo xam ne guddi ñu jël autoroute bi dugg Touba dajji ay magasin wala ay banque bu ñu xëyee taqal ko waa Touba. nga xool trafica trafica yi eh, jaay jaaykat yu bon yi diilkat yi sàcc yi fraude bi corruption bi. tekkatu diil yi sàccum xale yi viol bi dóorkatu martu yi foo tourné léegi yaa ngi dégg xale yu ñu sàcc nit ku ñu rey jigéen bu ñu violé fajkati cosaan yi ak fajkati cosaan yi ñëw ci dëkk bi di arnake nit ñi di def seeni ñaawteef ci turu dëkk bi di jabar nit ñi di lekk xaalisu nit ñi di def ay ñaawteef kon loolu lu ñu war a bàyyi xel la kon Tuuba war nañu ko raxasaat fexe ba yini yep dara bañ fa am ya fa commencé di dugg ci yep ñu fexe ba am sécurité bu am solo bo xamanteni dana tax yep du fa am te Serigne Touba ñaanon na yàlla pour mu mussal dëkk bi ci mbolém xéti euh insécurité yu melni yep néwon na wa jaal xarimana hariman amina wa kum bi xifdihi kafilan domina néna na it wal tahmi daari an al fujuri wal fisqi wal batili fi duhuri wax na ne wa mas wa maskani sallim min al fujjaar yi tuuba sëriñ bi tere na fa xeesal mees yokk kawar col bu yiwadi ak col bu gàtt ak lépp loo xam ne lislaam daf ko xaraamal ci yéen jigéen ñi kon yéen jigéen ñi tuuba ak yéen jigéen ñi ñëw tuuba na ngeen bàyyi xel ndigali sëriñ tuuba yooyu ci dëkk bi te sëriñ tuuba wax na yan façon jigéen la bëgg dëkkal ci tuuba ndax moo wax ne وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين نخ نيانو سونو بروم نيكو نانغ ماي اي سخونو يو باخ يو خامنا نيو ماي ديمبالي سي راغال يالا بو سامبي اب دنك اب دك نك تا امو فا اي سخ امو اي سخونو يو باخ يو فا دكل راغال يالا غو فا مانا تخاوال نيوم نيوكاي مانا يق waaye nag soxna yooyu bu ñu baaxee ragal yàlla goo fa mën a taxawal ñoom ñoo koy maintenir ba ragal yàlla googu daal di continuer kon zawjatan saaliha la wax yoo xam ne tuinu ala tuqaa ñoo koy mën a dimbale ci ragal yàlla gi mu bëgg a samp ci dëkk bi wax na it ci xasid ak sindi di wax ne ma zawjatin saalihat bi diini yàllaahu soxna yoo xam ne yu baax la ñu doon yu yiw te am diine kon yéen jigéen ñi na ngeen fexe ba dugg ci ñaanuk sëriñ tubaa googu fexe ba bu leen bokk ci jigéen ñi nga xam ne la fa Sëriñ Tuubaa di tere ñoom ñoo ko fay def mbaa ñoo ko fay andi. Touba foo tourné léegi yaa ngi gis médicament contrefaçon yi te mooy médicament médicament de la yi nga xam ne yu ci bari dafa tëri dafa périmé te date ba jeex na bu yàgg Touba am na sax ñu fa yor ay dépo médicament ñoo xam ne garab yi ñuy jaay maîtriser wuñ ko nga xam ne mën nañoo jaay malaat bi beneen garab bu bokkul ak biñ ko bindal ci ordonnance te amul benn contrôle telolo loolu moy sabab maladie yi ñuy wax insuffisance rénale té moy fièvre roño té rein motax Touba bu xolé mo mu ëpp ay insuffisance rénale am sax borom camion buñ fa Aigarab japp bu defoon ay garab biñ ko estimé toll na ci ay millions té mujjul fenn kon li lu mat buñ bu borom pour mu ñuy suñuy jàngoro te ñun lépp lu andil jàngoro ci lañu dëkk kon duñu jug mukk ci febar te sëriñ Tuubaa khadim Rasuul mo ñaan boromam ne ko yaa barru ya latif ya muafi ya man lahu amrul wara ya shafi anzil shifaaka makaana dai wala tuamilna bil ibtila'i Touba amna ay xeetu boisson ak ay xeetu ndox ak ay xeetu lekk yoo xam ne Touba rek nga koy gisee te benn baaxu ci te amul contrôle am na yenn lekk yoo xam ne sax date bi day jeex bu yàgg ñu changé emballage date datewaat ko di ko jaay nit ñi te amul benn contrôle mu mel ni Touba ku am sa produit bu bon te périmé Touba rek nga ci xalaat kon alimentation yi dugg Touba war nañu ko contrôler saytuwaat ko bu baax a baax euh, Touba léegi am na ay jeunes yu fa juddoo màgge fa doon ay doomi murit waaye wàcc nañ seeni yoon di attaqué kilifay diine yi di wax lu ñaaw di ko jëmale ci kilifa yi te loolu danger bu mag la ci yoon wi ndax bari na ay lobby yoo xam ne ñoo nekk ci seen ginnaaw di leen influencer di leen dooleel te saboote ak yàq liggéeyu Serigne Touba rek moo leen tax a jóg te mooy seen objectif te ñooñu nag ñu ñu war a recadrer lañu recentré recentré recentré waat leen ndax yoonu yoon wi gën a mën a ñoŋ. te sëriñ Tuuba ñaanoon na boroomam ne ko wahab lana makaarima al axlaaqi maxat taxaabu bi bila chiqaaqi wa jaal saxirana yuwaxiru lkabir wa jaal kabirana yuinu li saxir te yooyu yëpp problème mu jikko rek moom moo ko waral kon nañu defaraat suñuy jikko bu baax te xoolaat suñu bopp Touba Serigne Touba daf ko sanci wutal ko ay tur yu yiw bi ci njëkk mooy turu dëkk bi te moo di Touba موي شجرة طوبة بير كارتي نك مو تودكو أي تورو رافت دي أي تورو يالا لومل دار القدوس دار المنن دار الرحمن دار الرحيم دار العليم الخبير جنة النعيم آه عالية واي بيفا أي نيت تخوسي سي commencé dégg ay turu ceddo yu kenn xamul lu muy signifié ay alom ga dakar ga isin xorom isin galas kër vele sexaw yii yëpp di ay tur yoo xam ne dëppoowul ak ni ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul bëggee woon kon quartier yooyu dañ ko war a ngéntewaat jële fa turu ceddo yooyu te quartier euh, bu ñu bëggatee sos ñu dem ci sëriñ bi mu jox leen ay tur yu méngoo gi Serigne Touba daan sance xoolal lu mel ne Daaru Salaam xoolal lu mel ne Daarul Muxti di ay tur yu yiw waaye tur ceddo yii moom doxul dañ ko fa war a jëlee mu mel ne Touba ñu bari ñëw nañu sanc si ngir bëgg dëkk ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci biir Touba ñooñu nag am na ci ñoo xam ne bu ñuy ñëw ci Touba seeni jikko dañ ko fay bàyyi bu ñuy ñëwee sàmmonteeg war may Touba ak aqi Touba waaye nag am na ci ñoo xam ne bu ñuy ñëw seeni jikko dañ koy àndaale solution bi nag mooy balaa ñuy mayeti kenn terrain Touba war nañu ko sensibiliser xamal ko kan mooy Serigne Touba ak naka la bëggoon ku dëkkeek moom Touba ak lan moo taxoon mu ci Touba te loolu nag mairie bi Touba ak chef de quartier yi am nañ ci une une une part de responsabilité kon chef de quartier rolam du rekk nekk ci quartier bi ku jaay terrain wala koo daggal terrain mu mosal la déedéet euh, chef de quartier euh, war naa xam ñi dëkk ci dëkk bi di bàyyi xel nit ñi ak dëkkuwaay bi nekkuwaay bi dugg beeg génn bi lu mu gis lu ko jaaxal mu oote ca kaw dénoncé ko te Sëriñ Tuubaa ñaanoon na boroomam ne ko waj'alhu maskana xuruji min zulam li nuuri wakfi anhu kulla man zalam na nga def sama dëkk bii di Tuubaa muy dëkk boo xam ne képp ku fi ñëw dëkk bi dina la génn ci lëndëm jëme la ci ak leer te loolu la alquran di junj di wax ne yuxrijuhum min azulumaati ila nuuri te Tuubaa Sëriñ Tuubaa dafa ñaan boroomam ne ko képp ku dëkk Tuubaa nanko nga ay bakaram ak kep ko xamne Touba ñor nako waghfir liman waghfir man li kulli man biha qad sakana walillazi laha li xayri rakina Touba ak statut spécial bi mu am waron na am ministère spécial pour mieux gouverner Touba nga xamne Touba dinañ ko wutal tribunal spécial bu mengok ak statut spécial bu Touba nga xamne dinañ ko mën force spéciale buy saytu sécurité khalif bi ak dëkk bi su agent de sécurité Mo xam euh, agent de sécurité buñ wara andi Touba ñu defal leen formation spéciale bu mengok ak bu Touba ndax des fois nga gis yenn agent de sécurité yo xam dañuy violer charte Touba di sanni ay lacrymogène di ay nit di xoti war may Touba Euh, ngir fàtte Touba ak statut social bi mu am bu ñu xoolee état d'urgence bi passé rek façon violation bu ne gis nañ ko ci biir Touba ci diggante way takk der yi ak nit ñi ba mu mel ne sax xanaa ñii dafa am benn haine bu ñu jàppal askan bi kon loolu lu mat a bàyyi xel la euh, kon bépp agent de sécurité balaa ñu koy indi Touba war nañu leen a sensibiliser pour ñu am ak ràññee ak xàmmee te xam bu baax ak aqi dëkk bi te sàmmoonteeg war may Touba bu baax eh, Touba itam ngeen ngeen koy contrôler di contrôler bu baax dugg bi ak génn bi di bàyyi xel espace limitrophe yi eh, waxuñu rek nga toog ku la romb jox la 1000 francs nga dugal sa poche noono non te ngeen am yërmaande nag ci nit ñi di nooyal seen i kàddu ndax ginnaaw bu yàlla jàllee yéen yéen a yor sécurité nit ñi waaye nag bu leen fàtte na fi ngeen toog nit ñi leen fa teg te nit ñi ñoo leen di fay kon ñooy seeni ñooy seeni patron te nit ñi nag saa bu ngeen violé seeni droit ñu def leen nag ay noon ci wàllu cet gi ñu renforcer service d'hygiène jox leen ay matukaay ak ay éléments yu doy pour ñu mën a am hygiène de vie bu extraordinaire sapeur tamit ñu dooleel leen jox leen ay matukaay viol bi tamit ak sàccum xale yi ñuy ut ay psychologue ak ay waraatekat yoo xam ne dañuy sensibiliser nit ñi ci sàccum xale yi ak viol yi euh, ndax euh, bari na lool rawatina Touba te Touba nag war naa am ay kilifa yoo xam ne dañuy lëkkaloo ak police ak gendarmerie nga xam ne rapport yi ñuy bind dinañu ko mën a saytu balaa PV bi di dem Touba war nañoo am war nañoo préparer ay nit yoo xam ne li amoon bu amatee ñu mën a jël suñuy responsabilité li amoon nag mooy durant euh, couvre-feu bi bi ñu ne tëj nañ jumaa yi gisatuñ benn agent de sécurité ci wetu sëriñ bi ndax ndigal lu ñuy jotoon ci seeni kilifa te sëriñ bi daana julli ji bi ñu ne tijji nañ jumaa yi te sëriñ bi musul tëj ay jumaam ñu feesaat dell ci kër sëriñ bi loolu nag xel nangu ko euh, te lu mat a bàyyi xel la te liy wër jumaa ji état bi monté na fa ay caméra de surveillance buntu kër doomu Serigne Touba bu ne am na benn bu fa nekk kon day mel ne kër doomu Serigne Touba yi ñoom amatuñ vie privé kuy dugg ñu xam kuy génn ñu xam même buntu kër Serigne Touba am na benn caméra de surveillance bu fa nekk kon day mel ne xalif bi moom amatul vie privé bu duggee ñu xam bu génnee ñu xam démb nag résidence surveillée la woon waaye tey nag caméra de de surveillance la bu fekkente ne insécurité moo ko tax a jóg amna ay quartier yo xamanteni ñu gëna am insécurité ci biir Touba ngeen jël caméra yoyu fa kon man sama développement de Touba ci côté agriculture Touba bu amone ci souf lu ci exemple xel comme 45 000 hectares té mu nekk nak ci touru Serigne Touba nga euh, toujours Serigne distribuer ko bu ko euh, lu 15 ci 15000 hectares jox ko ñii ne leen bay leen fa gerte ñii ñu hectares pour dugub 5 5000 hectares pour ñebbe ñii dem 10000 hectares pour moko ñu jël lu 25 ci 25000 hectares ñu jëmbat fa mangue banane, papaye limon ak yu ni mel jël lu hectares pour xaal jël lu toll ci 3000 hectares ñu bay fa mbayum noor euh, lu mel ay légumes ak yu nous mel su ko defee ñu créé nag ay dañuy ay céréales di wal mboq mi ak dugub bi diko transformer farine ndax farine de maïs ak farine de mil mo gëna cher farine de blé su su boobaa mouridisme dina mëna euh, produire farine de maïs ak farine de mil. bu ko defee ñu daldi créer nak ay centre commercial yo xamanteni euh, ci turu mouridisme lay nek ak centre commercial yo xam dina yaatu euh, comme 1 km nga xam yi ñuy bay yépp dinañu ko fa mëna exposer Euh, ba pare nag subventionné njëg yi dugal ci wax waqf lillahi yombal ko nit ñi nga xam ne lu boutique gi di jaayee euh, fukk mouridisme dina ko mën a jaaye juróom su ko defee nag lu mel nii dina mën a créer ay emploi ci employé euh, ci biir Touba bu ko defee dina mën a créer ay ay ay emploi ci biir Touba bu ko defee mouridisme tamit mën a am ay partenaire di leen jaay ci côté agriculture bii rek mouridisme man na cee gagné 100 milliards par an te 100 milliards par an moom ku ko am normalement waratoo am problème assainissement problème hôpital problème mu tali te waxuma sax mouridisme waaye Sénégal ci boppam mooy développé wu te su boobaa euh, dinañu consommer local ndax damay faral di wax ne bépp réew bu bëgg a développé bul xeeb ñaar yii sa làkk ak sa lekk ndax agriculture dafa nekk secteur boo xam ne lu indispensable la ci am rew te buñu xolé mam Cheikh Anta borom gaawaan ci côté euh, management en 1900 mo nekkoon l'homme le plus riche au Sénégal te activité principale am agriculture la won kon bo bëggee fonku sa culture bul sagané agriculture te bayit yi serigne touba di ñaan di wax né wa kathiran xayraati al baladi wa risqahu wal takfi an nakadi agriculture bi man na ci joué lu bari bari kon li ma wax dafay dugg ci agro industrialisme muy mbay mi transformation yi euh, ak commercialisation commercialisation euh, mairie bu Touba mairie bu Touba mairie bu Touba tamit ngeen xolaat seen bop bu baax ndax seen liggéey des na trop ci walu assainissement zéro forum bu yaa gis mbalit muy tasaaroo ci biir dëkk bi ndox yuy taa di andi ay feebar ak ay yoo li yu yàqu mbedd yu lëndëm lu ngeen commencé ba finition des fa ngeen dem ba ko fa côté administration bi moom Touba 90 pour cent seeni kayit normal kon day mel ne politique ak interpersonnel rek ngeen fay gérer rëkkiwaay liggéey leen wala ngeen delloo mairie bi sëriñ bi ndax am na ay association ak ay boroom xam-xam yu motivé ñoo xam ne liggéeyal Sëriñ tubaa rek moo leen tax a te yéena leen di baare ci lu bari kon na bu ngeen mënul liggéey dëkk bi delloo leen dëkk bi boroom dëkk bi mu xool ñu ñu engagé te compétent mu jox leen ko tardel dëkk bi rek ngeen di def ku mënul ba woo lu yàqu yow waaye nag ku man te defoo yaa yées Tuubaa war nañoo am suñuy propre réseau téléphonique maanaam réseau mobile boo xam ne ci ci turu mouridisme lay nekk su boobaa dootuñu soxlaati benn opérateur de télécommunication nga xam ne dinañu am suñu propre réseau de téléphonique Touba dañoo war a indépendant am suñuy propre moyen de communication mel ne télé wala rajo et cetera te mu nekk nag ci turu Serigne Touba bu ngeen gisee saa yu ma waxee ne ci turu Serigne Touba lu nekk ci turu Serigne Touba dafa gën a wóor privé ak donte privé yooyu am na ci sax yoo xam ne Serigne bi moo leen yilif waaye mu nekk ci Serigne turu Serigne Touba dafa gën a wóor ndax bari na ñuy créer ci turu Serigne Touba ak ci turu Touba te Touba amu ci pourcentage exemple lu mel ne autoroute Ila Touba Touba amu ci benn chantage bu mu ci am amu ci pourcentage. Touba tamit war nañoo am suñu propre réseau de transport. bu indépendant boo xam ne ci turu Serigne Touba lay nekk Touba war nañoo tamit yokk garab yi ñu fay jëmbat te wut nag ay garab yu am ker te baax ci wér gi yaram nga xam ne dinañu mën a wàññi tàngaayu dëkk bi comme lu mel ni ay garabu xay ak yu nu mel te wàññi nag niimaa yi garabu niimaa yi ndax weex na tàng na donte am na njariñ garabu koko yi ak tàndarma yi tamit ñu def ko ci autoroute bi ak li jumaa ji pour taaral ndax Touba verte la ñu bëgg gox yépp ñu jëmbat fa ay garab euh, pour ñu mën a am paysage bu rafet bu méngoog Touba ndax ci wàllu écologie euh, ñu bañ cee des ginnaaw développement de Touba mouridisme dafa war a créer banque boppam banque boo xam ne banque du mouridisme lay tudd wala sax nuñ ko tuddee baax na nga xam ne murid bu ne dina fa am compte boppam ñu am tamit suñuy fonds d'inversion ak suñuy propre réseau de transfert d'argent ce nak dinañu nous permettre financer les lu bëgg té financer Nous avons indépendance financière nous xamné ne lépp lu réaliser dinañ ko ci de transfert euh, systématiquement lu bëgg té réaliser dinañ ko par exemple l'infrastructure, infrastructure dinañ ko mëna comme lu mel autoroute Ila Touba doon nañ ko mëna Euh, ba pare moom ko ndax bu ñu fàttali ne autoroute bi privé la banque bi bu taxawoon dina mën a financer tamit lu jëm ci wàllu assainissement ak lépp lu jëm ci wàllu agro industrialisme ak li ci aju santé ak li ci aju éducation ak li ci aju su boobaa banque bi dina mën a financer Touba pour mu mën a am eau potable ànd ci nag euh, ak gouvernement en coopération en coopération Touba dina mën a am ndox mu baax te sell ndax loolu Serigne Touba ñaanoon na ko ci dëkk bi wam nun alal ahli bi ma in yi banque bi dinañu mën a financer Touba ci lépp lu jëm ci éducation nga xam ne ci wàllu éducation académique dinañu mën a moderniser daara yi def ko ay daara moderne par exemple ay internat nga xam ne xale bi dootul yalwaan dina sol lu set dina lekk lekk bu baax te formation dina solide te njàngam dina gaaw te dina ko mën a dinañu ko mën a jàngal histoire yonente bi sallallahu alayhi wa sallam histoire Serigne Touba Xaadimu Rasul ak histoire réelu réew mi nga xam ne dina ko permettre mu gaaw a gaaw a incorporer à l'éducation primaire waaye nag su boobaa il faut ñu defar ay écoles yoo xam ne dañuy méngoo ak institut spécial bu Touba te dëppoo ak li sëriñ bi bëgg te mooy ñetti étape d'enseignement yi primaire secondaire euh, supérieur enseignement supérieur boobu nag te mooy université bi ñu fexe ba mu am portée mondiale nga xam day mel Al Azhar bu Caire wala Sciences Po bu Paris wala London wala London School wala Harvard bu Amérique wala sax mu gën leen nga xam dina nek jàngukaay bu mag pour monde bi yépp ndax Serigne Touba dafa ñaanoon yàlla dëkkam bi doon dëkkub xam-xam واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم تسرين تبانك كونترول بأن خم خم بيجر نيركي ndax dafa wax ne hada wa khayrul ilmi ya dawil huqul ilmun muqarribun liman minhu nuqul kal haqdi wal fiqhi wat bu ko defee xale yi ñu defal leen ay formation pour bu ñu génnee ñu mën a intégrer ci société bi ndax xale yi bu ñu jàngee ci daara yi dinañu mën a am xam-xam waaye nag du ñu am métier te bu ñu génnee du ñu gaaw a euh, du ñu gaaw a intégré ci société bi yoonu murit war nañoo sos commission boo xam ne mooy saytu mbooleem kuy wax wala kuy bind di ko jëmale ci yoon wi euh, commission boobu képp ku bëgg a bindati nga daldi Euh, envoyé commission bobu buñ ko validé nga daldi di buñ ko validé wul nga daldi arrêté ndax euh, légui yoonu mourid dafa commencé déborder lu neex way wax lu neex way bind ci yoon wi euh, té yoon wi dañ ko wara sécuriser ndax légui histoire bu né lañuy créer di déformer di falsifier kenn xamétul lu Sëriñ Tuubaa wax ak lu ak lu mu waxul ak ñi nga xamné dañuy woté ak ceex te xamuñ seeni farata xamuñ seeni sunna yor ay njabar di dévier nit ñi di leen wax leneen di leen jëfloo leneen lu bokul ak njàngalem Serigne Touba Khadim Rasoul kon ñooñu ñu ñu war a recadrer lañu jël ay matukaay ci ñoom ndax lu baree bare lu yàq ci yoon wi ak luy tilimal yoon wi ñoom ñoo ko yàq lu mata a bàyyi xel la ñoo ngi yor ay xërëm ak njabar te naan di mbubboo serigne si naan diw wala serigne diw moo ma seexal bàyyi leen seen caaxaan yi te ngeen dem jaamu yàlla te bàyyi yoonu murit wi ngeen di taxal ak tilimal barabu Serigne Touba tamit war nañu ko wutal commission buy saytu lépp lu fay génne ci xaalis ñu ubbil ko compte d'inversion islamique nga xam ne dafay génne ci xaalis dinañu ci mën a jàppale daare alxuraan yi nekk ci dëkk bi ak xale yi génn di jàngi te amuñ bursu euh, te di fa jànkoonteeg ay coono tam manque de moyens yi rek euh, moom moo ko waral ak les jeunes étudiants yi nga xam ne ñoo ngi liggéeyal Serigne Touba bu baax ci téere xam-xam yi ak xaside yi pour euh, améliorer ko tasaare ko ba ñëpp mën cee jariñu kon barabu Serigne Touba la fay génne ci xaalis war nañ ko utal commission war ko utal euh, ñu koy saytu ba mu mën a liggéeyal Serigne Touba ci anam yu baree bari yoonu murit tamit jumaa yi ak jàkka yi ñuy tabax war nañu fay teg ay boroom xam-xam yu compétent yoo xam ne seeni discours dina nekk discours yu pertinent am ay jeexit ci nit ñi ay nit ñu élo ñu am éloquence te am fasaxa am xam-xam te xam nit ñi te xam dëkk bi ñu teg leen fa ñuy def si ñuy def ay discours waaye tabax jumaa am na solo waaye message ba fay jàll moo ëpp solo ndax bu ñu xoolee alam tara kayfa faala rabbuka bi aad iram zaati al imaad allati lam yuxlaq misluha fi lbilad wa tamuud alladina jaabu saxra bilwaad wa firawna dil awtaad alladina taaw fi lbilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب boo xoolee waa aad ak waa aad amoon nañ ci ay tabax yu rafet yoo xam ne kenn mësu ko créé waa Samood yàlla mayoon na leen ñi yett montagne yi lu leen neex ñi def ko fa Firawna yàlla mayoon ko muy defar ay xeetu pyramide yu yéeme yéeme waaye seen tabax yooyu amul benn njariñ yàlla dafa mujj effacé lépp fu ñu mujjee fa sabba alayhim rabbuka sawta adab ndax amul information ba fa wara jall jall fa kon tabax mu lu rafet baxna lo way ñu fexé ba information ya fa wara jall jàll di di nit ñi ñu wut ay nit yu am éloquence yu am fasaha am xam-xam xam dëkk bi xam nit ñi te seeni discours pertinent bu ko defé ñuy man di nekk ci bërepp yoyu te yoonu murit euh, fal yom nako ko waaye fol yi moko te nit boko ko ci place la taxone nga fal ko defatu ko dangaa war a xool keneen ku ku man la muy def nga jële ko fa moom teg fa keneen mu doxal ko euh, te yoon wi léegi dafa am ay lobby yoo xam ne yoon salteel yoon wi rek moo leen tax a jóg dara ñoru leen lu dul nguur ak xaalis nguur ak xaalis rek moo leen ñor euh, xaalis jalal na leen lu ne boo leen joxoon xaalis sax ñu jaay la jumaa ji euh, boo bëggee ñu boo bëggee juma boo leen joxoon xaalis sax ñu jaay la jumaa ji nguur ak xaalis rek moom moo leen yitteel te ay lobby lañ yu nekk ci dëkk bi jaay nañ seen diine jaay seen gor te kenn mënu leen a génne ci yoon wi yéen waa Rawdu Rayaahiin maa ngi rafetlu seen seeni liggéey bu baax waaye nag maa ngi leen di proposé ngeen di tàllal seeni loxo boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo bokk ci yoon wi te taxul nit ñi xam leen te nit ñi war a mën a jariñu nag ci seen xam-xam te ñu bari ci ñoom xaw isolé ba ñu bari sax yaakaar ne dañoo contre yoon wi wala dañoo contre Serigne Touba ñooñu dañu leen a war a andiwaat jox leen ay pastu yu dëgër euh, yu dëgër ba ñu yëg ne kenn boddiw leen euh, euh, bu ko defee ñu mën a jariñ nit ñi ci seeni xam-xam yéen waa Touba ca kanam maa ngi leen di encourager di rafetlu seen taxawaay ak seen pasteef waaye nag ngeen fexe ba gën a améliorer seen liggéey waa xidma tamit fàttewuma leen seen liggéey rafet na waye ma ngi leen di gën soññi ngeen gëna yok seen taxaway hisbu tarqiya fàttewuma leen seen taxaway rafet na lool waye ma ngi beral sant euh, euh ma ngi beral cant cant gu ràññeeku wa keur Cheikh Ibrahima Fall Babul muridin muy bay fali yeen yene soldari Serigne Touba khadim Rasoul Serigne bi rek mom mo leen ñor ñoo ngi leen sant bu baax ci seen taxaway di sant nak mbooleem Kurel, wala association bo xamne ne liggéeyal Serigne Touba mo la taxajuk di soññ sama bopp ak mbooleem kuy murit ñu gën a takkaayu laxasaayu boole gëm bëgg ak liggéeyal Serigne Touba tey moytu diingat di jëfe ndigal di bàyyi tere di liggéey di liggéey di joxe addiye te fonk culture culture mouridisme te mooy teggin ak taalibe ak yar fonk suñuy kilifa te xam ne amuñ lu dul ñoom léegi nag da ngay gis murit bu sañ a toog wax lu ñaaw jëmale ko cib sëriñam wala mu jëmale ko cib sëriñu jàmbur te loolu lu ñaaw la nañu dolli yar bi ak teggin yi ah, am na tamit phénomène yu bees xale yu ndaw war a jàngi war a liggéey waaye sol seeni bolok di wër màggal yeeg cant yi foo ne ñu naane ji fa kafe yor seeni dollu te naan sëriñ bi defar na lépp bu sëriñ bi defoon na yow moom xam naa ne yoonu murit bi dara du ci taxaw kon dem leen liggéey ndax ngeen mën a teral seeni waajur ndax bu sëriñ bi ootee ngeen mën a participer ci liggéeyub sëriñ Tuubaa boobu kon nak maa ngi yemale foofu sama samay kaddu ba yenen jëmmi jamono wa ja'al ilahi maskani tuba abad mithla miha bi jahi khayr man abad wa maskani jaal maskanan mubaraka wa sayyirani salika wa nasika sayrani سالكا وناسكا وبسلكا مسالك الخناس ولتكفني عن جملة المعاصي وأرض اجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان وأرض واجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا maa ngi nuyu waa Dakar Actu yëpp di jiital ci nuyoo boobu sëriñ mi nga xam ne moom moo jiite kër gi ak mbooleem personnelu Dakar Actu bi yëpp ak sëriñ Sele Mbay moom mi nga xam ne taxawaay bi ñu am fi yëpp ci loxoom la jaare